tey bésu ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 ministère bi dënk wérgu yaram askan jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci ñaar junni ak téeméer ak ñaari test yu ñu def téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent cas contact mooy ñi laale woon ak ñi amee doomi jàngoro bi amul benn cas importé téeméer ak ñaar fukk cas ñoo am ci transmission communautaire maanaam ñu jot ci jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu fukk juróom lañu am ca Thiès juróom-ñeent ca Kaolack juróom-ñett ca Kër Massar juróom-ñaar ca Mbuur juróom-benn ca Popenguine ak Tivaouane juróom ca Géejawaay ñeent ca Louga Richard Toll ak caajaay ñett ca Dakar Plateau Fatick Linguère Mamel ak Pikine ñaar ca Daaru Musti Fann Résidence Kédougou Kolda maanaam Matam Mariste Nioro Parcelles Assainies Rufisque ak Sacré-Cœur 3 benn ca Almadi Bambey Birkilane Dieuppeul Diourbel Foundiougne Grand Yoff Gueule Tapée Kaffrine Kébémer Khombol Mbao Médina Mermoz Nord Foire ak Touba téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ñi hospitalisé woon wér nañu bésu tey ñeent fukk ak juróom-ñeent malade ñoo ngi réanimation ñett malaat ñàkk nañu seen bakkan bésu dem alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak benn ak juróom téeméer ak juróom benn fukk ak benn wér nañu juróom benn téeméer ak fukk ak juróom ñaar ñàkk seen mu des ñetti junni ak juróom ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn ci hôpital yi.